ko départ woon. al bidaayati fi nihaayati rek. wa nihaayati fil bidaayati sama départ mooy sama fin sama fin mooy sama départ maa ngi ndokkal umma islam bi yëpp. waaye nag di gërëm di gërëm baatu dëgg bi. baatu. dëgg bi TV. baatu dëgg mooy la mooy laa ilaaha illa baatu dëgg. kalimatan tayyiba kalimatan xaq. kalimatu xuli kalimatu xuli ak kalimatu rusdi. mooy baat bi benn baat la rek. mooy laa ilaa kese ñu ne kalimatu xaq ñu kalimatu xulya kalimatu rusdi kalimatu lan tawhid baat baat bi baat laa ilaa kese mooy moom moom lépp moom maa la wax lii lii mooy lii nga tudd seen rajo yéen kalimatu xaq kalimatu rusdi kalimatu xulya kalimatu waahid nga doo dina kalimatu tawhid jërëjëf ñeenti ba de xam mooy lan mooy lawal laaxa zaari baatin tax yi dama dem mooy mooy wóob gis na àll bi lii lii lii ngi doon seen rajo bi yéen mii. macha bu day waar la tur bu day waar bi ma gisee bi ma lee tur bi ma ne Cheikh Moussa kii lu ma <laughs> mu ne baatu dëgg ma ne ñii sam ñi muus <laughs> baatu dëgg. kalimatu xaq. sëñ bi yéen a yéen a baax nu ngeen tuddee seen seen seen programme bi. waaye su ma ne su ma ne Mouhamad su ma ne Mouhamad ne ne ne ne ne ne Abdoulaye. Hmm. Eh, eh, lii may waxtaan bi. Youssouf hmm. Youssouf Youssouf pardon. Youssouf yu ñu toll Youssouf na. Hmm. xam nga Youssouf bu gudd doon ma laal ci xam nga Youssouf. Youssouf <laughs> sëñ bi yaa ngi koy may buzz. xaaral rek Youssouf waaw daa daa koy buzz bu baax Youssouf <laughs> xam nga Youssouf. dafa demoon ci kër buur bi. buur bi yar ko yar ko yar ba mu màgg. su fa rafet lool naka jantal booy dina jabaru buur bi nag ah xëy na xëy na yusufa léegi nag ci li parabole ya tëj na bunt ya tëj na bunt ni nangam nag mu dàq yusuf daw génn daw daw daw ba ci ba ca ba ca ba ci bunt ba rek fa saydaha la dal baaw mu ci bunt ba mu dee mu dee buur ba nag léegi nag ndaw si poñe yusufa ne ne buur bi yow loo xam ci xale boo xam ne yàqu yooyu yër sa kër ba màgg muy sàkku sa jabar inna kaydahunna aziim. inna kaydahunna aziim. wallaahi la waaye. waaye loolu. gis nga loolu gars yi tafsir ka yépp ko ragal. aaye bi kenn ñu ma ko tafsir. inna kaydahunna aziim. déedéet. la fa xew. wala qad xammat bihi wa xamma biha fii rek. gis nga xam nga tey sanga jaay bu defee bu defee benn benn benn waxtaan. nga gis loo ca war kii rek. nga nga dagg ko li ngay li li ngay tuddee dagg. dagg coupé coupé coupé ko noonu teg loolu pour gars yi man ma saaga ma yu mel noonu. Hmm. xam nga loolu am na léegi da ngeen coupé yàlla coupé la yàlla moom yàlla fii. Hmm. yàlla dafa def discours. aaya bi dafa war a fii yemul fii. Hmm. waaye wala xat xamat. bii wa xamat biyaa coupé tegalul nit ñi. boo ko tegalee ni mu ñaaw de. waxat xamat hitu xoona kan. Salih xaw xuti yoonu. bii ci Yusufa. wa xamad hittihu na moom yusufa bi haa ca ndaw sax ko occupé lii lii lii may aay bi boolu dana wala wala wala de yaa ngi indi yaa ngi indi yaa ngi si si suite suite suite wax bi lii moo tax da da nga ujjoo bon yàlla itamit mu ñaaw Yusuf boo demee bu ko dagg mu ngi ne si itoo na Yusufa Yusufa na ndaw si lii may wax bi dëgg dëkk bi nga doon indi lay ci kanam. leneen doo lay doon ñëw ci kanam. xam nga lu muy firi. loolu dafa yomb. léegi nag Yuusufa benn xale ba fa nekkoon ñu ne xale boo xam ne moo fekkee lépp moo lépp moom mooy atte atte bi mu ne xoolee bu xale bi bu bu bu xottee ci mbalam ci mbubu gannaaw xam ne ah ndaw si moo ko doon sàkk Yuusufa di daw bu xotte ko ci kanam Yuusufa moo ko doon sàkk waaye jege naa lay xotte yoo xam nga ne. yow booy daw booy dem booy dem sa kër. loo loo woon. ay ci gannaaw lay xottee ko. affaire la nëbb naa leen nëbb naa leen rek. ay maa ngi nuyu ñëpp di leen di kontaan trop. di nekk di nuyu daal Yusufa ak euh, nu mu ak ak mm. bi. ñu ngi koy bi ñu ngi lay ndokkeel baax euh, Seydi Mbaye. Euh, Seydi Seydi Seydi Souleymane Mbaye. am naa ci am naa kontaan lool ci yow di leen. Mm. yan yàlla aar leen yokk seen i maqaama yokk seen laj lijaaba yokk seen martaba fan wu gudd lool lool lool ànd wér alal yu bari lool te ànd ak barke wërsëgu yaatu lool te nooy ànd ak xel mu dal xol bu dal cër yu wér dund gu teey dund gu sell dund gu neex ci àddina mu neex ci barsaq mu neex ci biir àjjana mu neex léppay neex ñun neex lañ xam neex rek yontu ba nag moom day neex Cheikh Tidiane neex li ñëkk a neex Cheikh Ibrahim nag neexal na Sénégal mu ne fa Sénégalu يأوي تأت زلي محمد ويحبط ربا جل سهنا موحدا فمن سان سيئا غير هاسا فسنه شقيم عليل باطل لن يأيدا باي من رويدكم أهل كنزتي لن تروا مدى الدهري أنا أنا أنا أنا قطر موسى عليه السلام والسلام عليكم جاجوش يا برايم آه. سميوني باجز